wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi beneen yoon eh, gannaaw ñu jullee timis ànd ci xasida ju am solo jile di xasidaay suñu sëriñ sidi muhammad yi eh, bëddi sayidi abdullah bin sayidi ahmed al alawi shanqiti al waxoon nañ leen mi ngi juddu 1202 euh, kon xam ngeen ne dund naag cheikh tijan radiallahu anhu at yu takku ndax cheikh sayidi ahmed al tijani 1230 la fi jógee muy 1815 kon ku judd 1202 mooy 1787 dund nga ak Cheikh Tidiane lu jóge fanweeri at mu jógee fi moom si di bëddi 1265 muy 1848 eh, radiyallahu tabaraka wa taala anhu ñu ànd ak yéen nag ci xasidaam ju rafet jile nga xam ne bu weeru gàmmu tero ët góor yàlla yi di rëkk ko tertoo gàmmu gi ñu bari sax bind nañ ala min waalihi ala min waali e, hada shaar al waali al qasidati waaye du tere dañ fay bàyyi seen mbind di wettadi ko xasida jile ku mel ni Cheikh Ibrahima Ñas gis naa mu bind xasida bu rafet ala waali hadihi al ko firi bu ko yàlla mayee bu ñu yàlla mayee tawfiq eh, ahlan bi shahril mawlidi dhakarana bil mahtidi waaye terewut ma ko fa daan bàyyi di jëfandikoo bu cheikh baddi nee na yaa rabbana yow borom suñu salli ala yal na nga julli salli yal na nga julli ala xeyril anaami ci gën ji mbindéef man ka nga xam ne ala kawe na ala samawaatil ula kawe asamaan yu kawe yi yonent bi nga xam ne moo gën a kawe xasamaan yu kawe yi wala moom mi nga xam ne ñalgu na xasamaan yi gën a kawe guddi gi nga xam ne xasamaan yi gën a kawe guddi gi nga xamee ne suñu borom rañaanee na ko bi izni rabbi mu defee ko ci kattan boromam mu defee ko ci izn ndigalal boromam ci permission boromam al ali moom mi nga xam ne mooy aji kawe nee na tahniatu rabii bi madxati shafii bilmantiqi albadii abri biha muammali bayt bi danañ ko fekkaat ca biir wala ca biir rek la nekk sax waaye daanaka mooy bayt bi ci gën a am qabul bu nit yi di woy xasida ju rafet jële moom la baarukat yi di aw maanaa xasida ji ndokkeel gu may ndokkeel man bëddi arrabi weeru gàmmu di ko ndokkele bi madxati shafii tagg yonent yàlla muhammad ki ajaram mu jaam ñi ma di ko defee bil mantiqil badii ci tuddugay aji héeme ab xiig ndokkeel goo xam ne danaa ca bi sàkku bihaa ca moom mu amali sama mébét ahlan bi shahril mawlidi yegsil dalal ak jàmm ñu ngi dalal ak jàmm di dalal ak jàmm di dalal jàmm weeru gàmmu weer wi nga xam ne ci la yonentu sallallahu alayhi wasallam juddu shahril ula kii weeru kawe wa suuda di akuk càng shahri nabi kii weeru yonentu bi ahmad kay ahmad shahri rabii la wali weeru rabii wu njëkk wi laa mooy weeru gàmmu xat xussa jagleef na juddu gi jagleef na yonentu bi sallallahu alayhi wasallam bi rabii yonentu bi dañ koo réserver shahru rabii mu juddu ci id ngir moom yonentu bi kaana dafa nekk ka rabii ni ki E, saison wu rabia ni ki e, faslu rabia kii printemps lil ardi ci suuf shafi e, rabia ni muy naatalee suuf noonu la yonent bi mel ci mbindéef fi moo leen di naatal ñoom ñëpp nag wa shafii te mooy ajiram bi kulli xatbin ci bépp mbamb mu adri mayaji të lépp lu la gàllankoor rek diis ko yonent bi boo jaaree ci moom rek yàlla defal la ko ahlan bi shahril faraxi waaw moo xam fii la moo xam fële la bu yowmal qiyaamati ñëpp ci moom la ñuy euh, jafandu ngir yàlla yërëm jam ñi te dana ñëw ca kanam mu ne ahlan maa ngi tatagal bi shahril faraxi ci weeru mbégte wi chahri dahabi taraxi weer wi nga xam ne mooy deme njàqare al taraxu mooy alxusnu awil hëmmu wa faxri naa weer wi nga xam ne mooy suñu puugaree wal maraxi weer wi nga xam ne mooy weeru suñu pugare wal maraxi ak tatuk mbégte al maraxu mooy shiddatu nashaati aw il faraxi ashadidi <clears throat> weer wan mu ne chahri nabiil afdali weeru yonent bi nga xam ne mooy aji gën sallallahu alayhi wa sallam ku yàlla bind yonent la gën wan weer ngay tatagal yow sidi ba mu ne chahril falaxi wa weeruk texe ak mbégte shahrin weer wi nga xam ne bii ci moom yonentu bi sallallahu alayhi wa saada la kawe la sangoo moom weer yo du hóor a jamono yépp weeru rabiix yonentu tax na mu gën weer yépp nag mu washahin muy ku ñu màndargal bayna shuhóor yi diggante weer yi mu tawajin muy ku ñu solal mbaxanam buur mu kallalin muy ku ñu solal mbaxanaam buur moo xam ne dañ ko rafetale jawhar kallalahu ay albasahu l ikliila wa huwa taaju wa yuqaalu kallalahu ay zayyanahu biljawhari kon nag ahlan bi chahri lmawlidi chahri lula walsudadi chahri nabiyi ahmadi chahri rabici lawali qad xussa birrabici id kaana kirrabici lilardi walshafici bikulli xatbin mucdili ahlan bi chahri lfaraxi chahri dahaabi ttaraxi wa faxrina walmaraxi chahri nabiyi lafdali shahri alfalaaxi wassuruur shahrin bihi saada duhuur muwashaxin bayna shuhuur mutawajin mukallali waaw nee na ahlan bi shahri alfaatixi iglaaqa kawni alfaatixi man xussa bilfawaatixi wa xaaza xatma almilali ahlan ñu ngi tatagal bishari lfatixi ci weeru yonantu bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam mooy aji ubbi ixlaaqa kawni lfatixi tëjëg kawnu àdduna kët wala tëjëg amal ak yàlla mi nga xam ne mooy aji amal ndax yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mooy alfatix lima uliqa bët bu set ngeen jàng ko ñàkk gi nga xam ne moo fi nekkoon dappet yàlla rekk nekk fi leneen new fi bam na mee amal leneen lu dul ci yonent bi la ko tijjee kon nag mooy alfatixi li maa xuliq ahlan bi cheeri lfatixi ixlaaqa kawni lfatixi man ka nga xam ne xus sa jagaleef na ko bil fawaatixi ci ubbee yi moo xam ubbi la moo xam ubbi zahir la moo xam ci xare yi la moo xam ci wàllu xol yi la moo xam ci wàllu boppam la ci digganteem ak boromam waxaasatem laq moom yonent bi xatmal milali mottali diine yi waaw lépp loo xam ne jaaroon na fi ci ay mission yu joge ci yàlla moom mooy ki nga xam ne mooko mottali mooy alxaatim lima sabaqa ahlan bi chahri alxaatimi chahri nabiyin qaasimi wa fatixin wa xaatimi wa axirin wa awwali maa ngi tatagal ak tatagal bi chahri alxaatimi ci weeru aji atte weeru aji xereñe weeru aji waral ji alxaatim mooy alqaadi wa yuqaalu alxaatim ay almutqin aw il mujib mooy aji àtte ndax yàlla moom la samp ci kaw suuf mu àtte jaam ñi mooy aji xereñee léppam moo xereñ lépp la xereñee sallallahu alayhi wa mooy aji waral ndax moo wuutu yàlla ci shariatu ak tashriu mooy shariu alayhi salaatu wasalaam kan mu ne wala lan mu ne shahri weeru yonentu yàlla muhammad bi nga xam ne sallallahu alayhi mooy aji séddale nee na yàllaay joxe waaye maay séddale moo tax mooy abul qaasimi rahma sallallahu alayhi wa sallam wa kay aji ubbi wa xaatimin kay aji tëj wa axirin kay aji njëkk wa awwalin wa axirin kay aji mujj wa awwalin kay aji njëkk yonentu sallallahu alayhi moo ubbi yonentu gi moo ko tëj moo fi njëkk ci li yàlla bind waaye moom la yàlla njëkk a jox nubuwatu moom la yàlla mujj a yónni it sallallahu alayhi wa sallama ahlan bi chahri naasiri lilxaqi chahri laamiri bil urfi chahri zaahiri bi kulli wasfin akmali ahlan ñoo maa bi chahri naasiri ci weeru rabi al awal wi nga xam ne mooy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kii aji dimbali lil xaqi dëgg yonent bi mooy naasiri lxaqi bil xaqi shahril amiri bil urfi mooy weeru weeru yonent bi nga xam ne mooy aji digle mbaax waaw ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkari yonentu lañ cay roy shahri zaahiri weeru yonent bi nga xam ne mooy aji feeñ bi kulli wasfin akmali ci bépp melo woo xam ne wu aji mat la melo gis muy welow melow mat rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko fees dell feeñca ahlan bi shahril haadi لمنهج الرشاد وقائد وحادي إلى الطريق الأمثل أهلا بشهر الهادي ñongi tatagal weeru yonentu sallallahu alayhi wa sallam mi aji gindi ji jëm ci yoonu njub wi wa qaidin mooy aji womat wa haadin tey aji womat womatu ku wëyal alhaadi mooy ki nga xam ne mooy aji màng alladi yasuuqu al ibla bil ay alxanaa'i ki nga xam ne mooy màng gëlëm yi di leen wëyal gëlëm yi di sawar yonent bi sallallahu alayhi moo màng jaam yi di leen bégal mbégale yi nga xam ne mooy e, mbégale yàlla yi mbégale al aljanna mbégaley dund gu neex mbégaley mbaax mbégaley rafet ci biir ak ci biti mbégaley gumu gumu gumu rek yonent bi sallallahu alayhi indi na ko ngir womat jaam ñi jox leen Eh, seen borom ana fu mu leen jëmee mu ne ila tariqi jëm ci yoon al amsali way yoo way aji temm wala wada gën a temm yoon wa gën a temm mooy yoon wa yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam jëmee jaam ñi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ahlan ñu ngi tatagal ahlan bi chahri sayidi li ahmarin wa aswadi man xaaza sabqa sudadi yowma ictidaari rusuli ahlan ñu ngi tatagal bi chahri sayidi euh, weeru sang bi ki nga xam ne mooy sanguli ahmarin képp ku xonq wa aswadin ak ku ñuul man ka nga xam ne xaasa laq na mu sabqa sudadi gattaxu jiituk sang ga yowma atidaari rusuli bés ba nga xam ne yonent yi li ñuy baax-baax dëgg-dëgg danañ wax ne mënatuñ nag danañ ngàntañlu waaw bés bi nga xamee ne ñépp danañ jog ngir jaaxle fuñ jëm fuñ jëm ñu ne nañ dem ci aadama moom la suñu borom njëkk a bind ko ci loxoom bu tedd ba wal ci moom ruuxam gu sell ga digal malaaka yi ñu sujjootal ko kon nag moom war naa mën a wax ak suñu borom aadama joxe ngant sama borom tey ni mel ma gis mu mel nii te du ko mos a melati waaw sama bopp sama bopp mu tudd bàkkaar yonent buñ dem rek mu tudd bakkaar ñoom ñëpp booloo rek ne eh, dem leen ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom ba mu ñëwee rek mu ne ana laha waqad kafaaha fegal na njàqare ma kullaha waqad kafaaha fegal na njàqare ma wala njàqare ya kullaha yépp seen wala kullaha ñépp seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp kul fegal na leen aba aha waaw bu la neexee nga ne waqat kafa fegal na yonent yépp kullaha ñoom ñépp waxat kafaa fegal na jaam ñi kullaha ñoom ñëpp aba aha xen yu diis ya nga xam ne moo tege ci seen kaw wa kallaha ak jafe-jafe yowmal qiyaamati bi qawlihi ca waxam ja ana laha tey moom rammu ak wax ak sama borom man rekk ko mérité kañ inde shidaadil wajali fa tarok njàqare ma fa yàlla yéem naa plan bam def min xutta ci plan jawaabo tontu ga nga xam ne am na fi xitta ca suppeeku ga foo mu sujootee di sàkku njëggal ja tontu gan min rabbihi ga tukkee ci boromam lu ko suñ borom tontu ba yonent bi di ñaan ak di ko tagg tagg woo xam ne yonentu sallallahu alayhi wasallam nee yàlla mosu koo yenkawal jaam moom ci boppam keroog lañ ko ko seega yenkawal kenn mosut koo wax yàlla ku dut moom te keroog la ko ko soog a wax yàlla ne yonent bi sal tuta laajal loo bëgg ma jox la sal laajal tuuxte joxeef la washfaa wutal ramm wasfa tinul jaam ñi la danaa fa ñun tuqbal ñu nangul la fa yaa laha min xutta jawaabuhu fi lxitta min rabbihi sal tuuxta washfa ladayna tuqbali kon nag ahlan bi shahri lmustafa ko kay moom lañu war a tatagal weeram bi ahlan ñu ngi tatagal ñu ngi welcome bi shahri lmustafa ci weeru yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam ne turam mustafa la safwati kulli mustafan muy tànneefu képp kuñ tànn wa xayri abdin di gën di jaam xat safa boo xam ne sell na min malakin moo xam jàmba malaka wa mursalin wala jàmba yonantu la wa chahri xayri lxalqi chahri jamili lxalqi chahri azimi lxuluqi tatagal weeru gën ji chahri jamilil xalqi weeri ki nga xam ne mooy aji rafet ji bind nim gënee mbindeefi noonu la leen gën a rafetee chahri azimil xulqi weeru aji màgg ji jikko fil muxkami te ñu seedeel ko ko ci alquran giñ xereñee al munazzali gada guñ wàccee ci moom jóge ci yàlla subhaanahu wa taala chahri alladi atharahu ilaahuhu waxtaarahu min xubbihi xayyarahu inda inqidaai al ajali chari ladi weeru yonentu yàlla muhammad mi nga xam ne atharahu aha tànnloo na ko ilaahu boromam waxtaarahu tam tànn ko yàlla sala yàlla ëfal na ko waaw aha chahru atharahu ilaahu waxtaarahu chahru ladi weeru ka nga xam ne atharahu jagaw na ko ilaahu boromam waxtaaroo tam tànn ko min xubbihi ngir soppam ngir sopp gi ko boromam sopp xëyyarahu la ko tànnloo inda inqidaayi la jëli fa digg ba jeexee malakul mawti ñëw ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam sama borom ma yónni kat li ma wax ne naa la ko laaj mosut maa yónni ma ko kenn kudut yow te dootuma ko laajati kenn kudut yow mooy su la neexee nga dund lu la neex am lu la neex boo fi jógee mu yóbbu la aljanna nga texe-texe gila neex bu la neexee it nga jox ma ndigal ma jël sa ruux léegi nga texe mu ne ko tànn naa sama borom ar rafiqal ala ar rafiqal ala ñu ngi dalal weeru ki nga xam ne ma masa mosta ñaawal xattu mukk waman loo moy ki nga xam ne ñeel na ko alxusna jëf ju rafet faqat dong alay ci moom kat habat la suppeeku jibrilu jibril bi kulli nuurin wàcceek ci moom bépp leer muctalin ngay aji yëgatiku muctalin ngay aji kawe muctalin ngay aji not lépp loo xam ne noonoo na ko italaa aduwahu ay galabahu wa qaharahu an muctali ay an nuurul almurtafic waaw ki nga xam ne mos def lu ñaaw yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mos ta def bàkkaar niñ tëlee naaw maag yéen la yonentu sallallahu alayhi wa tëlee def bàkkaar lu rafet wala lu gën a rafet kottul la yonent yi mën a def alxusna ala wazni fuula mooy ki nga xam ne jibril wàcc na ci moom te jibril la ca teddee donte li jibril wàcc ci moom wàccut ko ci benn yonantu nee na ji nee nañ jibril wàcc na ci moom limu yonantu yi alayhimu salaatu wassalaam waaye jibril kat moo ca teddee du yonantu bi nde yonantoo gën a tedd ku yàlla bind alayhi salaatu wassalaam ahlan bi leyli ithnay ashar fiihi wa yowmihi wa tibi dalika saxar wa nuuri ufqihi ljali ahlan ñu ngi tatagal bi leyli ithnay achar bi leyli ithnay achar ci weeru ci guddi fukk ñaar fiihi ci rabiul awal fiihi ci weeru gàmmu wa yawmihi ak bësa fukk ñaar ci weeru gàmmu bësu fukk ak ñaar ci weeru gàmmu ñu ngi leen di ndokkeel ndax ci la yonentu sallallahu alayhi juddu woon ñu ngi leen di tatagal yéen a ngi agsi yonentu sallallahu juddu wa sallam judduwut guddi bëccëg ci diggante guddeeg bëccëg ki njël ci la juddu ndax bëggut guddi ndamu ci kaw bëccëg bëggut bëccëg ndamu ci kaw guddi sallallahu alayhi wa gis nga ko ba ba muy juddu feeñal na ci ak màndu wa tibi dhalika sahar teewu googule njël xaw ma gan njël a tey de waaye njël gi yonent gi judd yonent bi judd amul genn njël gu teye noonu wa nóori ufqihi ñu ngi dalal tamit leeru goxi bés boobu ak guddi googu ak njël googu aljëli gay aju feeñ waaw jamono bi yonent bi juddoo sallallahu alayhi wasallam génn lëndam amul ci àdduna bi lépp leer ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki nga xam ne yàlla mi nuuru samawaati walla ardi moo ko def muy nuuram ci la juddu sallallahu alayhi wasallam mooy agsi mu mel ni nag mi ngi ñuy détaayal la xewoon mu ne ahlan bi kulli ma wahar min xaariqin yuciil fikar fiihi karafici lbasar ila maqaamihi laali ahlan ñu ngi tatagal ak tatagal bi kulli ma wahar ci lépp loo xam ne feeñ na min xaariqin ci xar baax yuciye goo xam ne dana lottuloo alfikar ay xalaat fiihi ca jamono gi yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddoo karafici ni ki yëgateem ilaa maqaami jëm ci maqaama mal ali ma kawe yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba ci suuf ca kaw la xool ndax ko ku koo xam ne sa mbir fa fas yéene kawe kaw ngay séentu de sallallahu alayhi wa sallam wa ma ra'athu min ajib aminatun xiina nisab sababatan hum aqtarab bi sajdatil mubtahili wa ma ra'atu ak la aminatu gis na ko min ajab ci eh, ajab ci ay kéemtaan xina nasa ba mu sampee moom yonentu sababatan baraamu ba mu joxoñee eh, ba sababatan baraamu sabbalee kaayam ba arab sababatu la koy wax waaye eh, yonentu sallallahu alayhi wasallam tuddee ko mu sabbihatu sababatan baraamu san saagaakaay lañ ko daan tuddee ñoom yonentu bi sallallahu alayhi wasallam tuddee ko baaraam bi sàbbal yàlla mu ne yéem mu neen ñu ngi tatagal waaye di yéemu ci eh, xar baax yi nga xam ne feeñ na ci jamono jooju yonentu sallallahu alayhi wa sallam juddu te ndey aminatu nettali ñu ci yu bëri mu ne xiina na sa ba nga xamee na samp na sa baabatan baaraamam bi nga xam ne mooy baaraamu sàbbalukaay bi humma qtarab topp mu jege boromam bi sajdatil mubtahili ci sujjóot ba mel ni sujjóotab ku xam yàlla ba koy toroxlul te dëgg-dëgg mooy sangab way xam yàlla yi waaw yonentu sallallahu alayhi wa sallam guddi kiimaan yu bëri dettali nañ ko ci niki ñëw gi nga xam ne waa xuurul iid ñëw nañ ni nga xam ne jigéeni aljanna yi ndaya asiya toog ñu mel ni moom ci cellte ñëw nañu ak malaaka yi nga xam ne ñëw nañoog yépp waaw te borom téere bi di ñu ci wax ay yëf ne kama tadalla zuhru kama tara alqasru fihi wa xella alkasru bi sanami almujaddali kama tadalla naka la fenke naka la wàcce naka la yoore azuhru way leer yi azuhru way fenk yi zuhru jamcu azhar mooy al abyadu al mushriqu al mudiu waaw ci dinañ tuddee jant ak weer al azharaani dinañ tuddee baqara ak ali imran az zahrawaani dinañ tuddee ndey fatimatu az zahra ndax leeram ak fenkam ak baaxam ak rafetam waaye fenk nag ci ay leer ci ay biddiw eh, ci guddi googu moom la borom téere bi di wax ne kama tadalla naka la yooree azzuhru way fenk yu leer yi kama naka la séenante naka la eh, leer gi def fexe ba alqasru pale ba nga xam ne ma nga ca eh, faris ak ya nekk ruum nañu uññeekoo ngir leeru yonentu sallallahu alayhi wasallam ba e, gisu nit ñi di leen gis fekk yaa ngi màkk ndax leer ga fiihi leer googu nga xam ne eh, eh, leer yooyu nga xam ne fenk nañu fii ak pale yooyu nga xam ne feeñ nañu bañ gis leen fii ci guddi gi yonentu bi sallallahu alayhi wasallam juddoo waxalla te wàcc alkasru dammu ga bi sanami ci xërëm almujaddali ga daguñ nërëm alaguñ nërmeel al mujaddal wa kam naka la ko góor ga waxeeti wa kam eh, wa kam eh, allahuma salli ala sallam kam jaddalat kalimatullahi kam jaddalat kalimatullahi min jadilin fiihi wa kam xassama al min xasimi al mooy ku ñu nërmeel xërëm yi nga xam ne ñoom lañ doon jaamu yépp nërmelu buñ taxawal rek mu ñu xam ne sangab eh, tawxid ak eh, eh, ilimaan ja xagsi na xërëm amatut place ci kaw suuf aha kama tadalla zuhru kama tadalla zuhru kama taraha alqasru fihi wa xalla alkasru bisanami mujaddali nee na wa gaadat albixaaru wa jëffat alanhaaru min ajlihi wannaaru qad tufiat min xajali wa gaadat tangiis albihaaru géej wa jaffat ta fendi al anhaaru min ajli ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallama wa naaru safara wa nga xam ne ñoom la faaris doon la faaris doon jaamu qad tufiat wala qad tafiat fayna min xajali ngir kersa waaw seen géej wa saa an gaadat buxayratuha wa rudda waariduha bilxaydi xiina dami waaw géeju ah, ga naar naaru faris wi nga xam ne junne at Mustafa yi guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo géej ga dafa ñiis dex ya fenni safara sa fay ngir am kersa ci ñoom ñu leen di jaamu te kiñ war a jaamu nga xam ne xalifaam xag si na tey ci àdduna wuñ ko ñoom daal wax dëgg yàlla bu fekkee ne rusuñoo nit fi mu rus nañu wa jinnuhum fi nakadi li ramyiha birrasadi wa azliha an maqaadi min ajli xeyri rusuli wa jinnuhum seeni jinne seeni sheytaane waaw wa jinnuhum seeni jinne fii nëkk di ñu ngi ci gaaf ñu ngi ci ñàkkuk chance ñu ngi ci néewuk cët ak ñaawle ko ñu ngi ci jafe-jafe ñu ngi ci tere buñ leen tere am accès asamaan wa jinnuhum fii nëkk di li ramyaa ngir sànni gañ leen di sànni bi rasadi ci ay juum ni ko alquran tudde shihaban rasadan ay man yarumu an yastariqa samaa al yawma yajid lahu shihaban waaw mursadan lahu laa yataxataahu wala yatacaddaahu bal yabxaquhu wa yuhlikuhu tafsiran li hadihi l ayati waaw naka naka la ko tuddee fa man yastamic laana yajid lahu shihaban rasadan li ramiya ngir sànni gi leen sànni bi rasadi ci juum yoo xam ne bu nekk dañ ko pointé ne ko toppal diw rek ba jam ko waa asliha ak ber giñ leen ber tere leen an maqaa di walis toog asamaan di déglu dogal yi nga xam ne ñooy dogee ci buur bi malaaka yi di ko jottali ko jinne yi daa ko déglu di ca yokk ay fen di ko jox seen buxaaba yi ñoom it ñu cay yokk ay fen di ko naxee jaamu yàlla yi keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo ca la jeex min ajri xayri rusuli ngir màggaay ngir eh, juddu ki nga xam ne mooy gën ci eh, yonantu yi min ajri xayri rusuli ngir ñëw ki nga xam ne moo gën ci yonantu yi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa rannatu sheytaani jaraa adim shani min awdaxi lburhaani li cudmi ma bihi btuli wa rannatu sheytaani binnik sheytaane jaraa azimi shani ay jaraa jaraa baax na jaraa baax na jaraa baax na jaraa min ajli lay ngir taalil la faaltu dalika min jaraika wa min jaraaka wa min jaraika wa ay faaltuhu min ajlika binnik cheytaane jara azimi shani ngir yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi aji màgg ji mit mbir li uzmi ma bihib tulii ngir màggug lañ ko nattoo min awdaxil burhaani bokk na ci gën jaa uh, uh-huh, màgg ci layi waaw wala waranatu cheytaani binnik seytaaneeg yuuxum ak jooyam keroog bi yonent bi juddoo jara azima shani ngir juddug aji màgg ji mbër aji màgg ji mbir min awdaxil burhaani bokk na ci gën jaa leer ci lay li uzmi ma yi wane ne màgg na li uzmi ma ci màggug la nga xam ne ubtulee na toof ko bii ci moom seytaane seytaane yuuxum keroog wane ne màggaayu nattu bi ko yàlla nattu mooy lim doon liggéey yépp ki ko war a yàq xagsi na sallallahu alayhi wa sallam nee na qad mannadul ifdaali bi afdali rijaali fi afdali layaali fi lbaladi almufaddali xad man na xéewee na dul borom nga léegi kii yàlla fi afdali layaali ci guddi gi gën ci guddi yi fi lbaladi almufaddali ci dëkk bi nga xam ne moom lañ gënale muy gën ci dëkk yi kii màkka moom de xéewale nañu bi afdali rijaal gën ci góor ñi ki yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla sama borom tabaraka wa taala nga xam ne mooy gënale moo koy joxe ngën mooy joxe ngëneel xéewale nañu gën ñi góor ñi ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gën ci guddi yi kiy guddik juddoom ci gën ji dëkk yi ki makka waaw kon nag ahlan bi yow mi iidi ahlan ñu ngi dalal bi yow mi iidi bësu feet gi feet gi nga xam ne maa misloo déet di ko niru min iidin ci feet amul benn feet gu réye ni judd gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam judd feetu judd gi bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa ndax bépp feet boo dégg kat bu yonent bi juddu woon du am kon nag feet yépp moo cay sabab bépp xéwal goo jë dégg ci ciy sabab kon nag ñëwam mooy bës bi gën a màgg ci bës yi moo tax jarut feeñal iidul adha buñ ko feeñaluloon duñ ko xam laylatul qadri suñ ko feeñaluloon duñ ko xam waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag jon jant ci bintu jul diggu njolloor ngay wan nit ñi naan leen jant bànge waaw kayfa yasixu fi l adhaani sheyun ida xtaaja annahaaru ila dalili waaw wa kayfa yasixu fi l adhaani sheyun ida xtaaja annahaaru ila dalili waaw yaaram ba mu ne bëccëg su soxlaa tegtal naka la lëf naka la dara di wétatee ci xel kon nag ahlan yéem ahlan ñu ngi tatagal bi yow mi iidi ci bésug feet bi nga xam ne maam isoo déddi ko niru min iidin ci feet ahlan bi yow mi li iidi bi taarifi maa misluhu min iidi qad xalla wàcc na bil mawluudi ci kiñ jut fiihi ci bés booba moom bés bi wàccee na ci maxalla zuxali barabu biddiw boobu ñuy wax zuxal maanaam bés bi yonent tax na ci bés yépp yu dul ñu moom mu kawe leen ni biddiw zuxal kawe biddiw yi wa saabi'il wilaada wa ma ataahu saada li wifqi ma araada ilaahuhu fil azali wa saabi'il wilaada ñu ngi dalal juróom-ñaareelu bésu juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ma ataahu ak la ay maamam li wifqi ma araada ci dëppoog la nga xam ne nag mu na ko ilaahu moom fil azali ci azal mooy ñu tuddee ko muhammad te noonu la ko yàlla namee ci azal ahlan tatagalal bi yow min ci bés bi nga xam ne summi tuddeef na ko moom yonent bi muhammadan muhammad xayras mi gën ci tur ramzan muy junjali maana lis mi maanaam turwa min jëddi tukkee ci maamam liyen yeen jëli ngir mu feeñ ahlan bi yow min summi muhammadan xayras mi رمزا لمعنى الاسم من جده لينجلي بحمد الأولين له والآخرين فكان la يقينا من الكريم المفضل بحمد الأولين ci santuk way njëkk yi loo ñeel ko moom yonent bi wala axiri naa ko way mujj yi fa kaana nekk daa tur wi nga xam ne maamam tuddee na ko yaqinan ci lu amul benn werante minal karimi aji jóge la ci yàlla mu aji tedd mi al mufdili ki aji gërëm amul werante ne yàlla moo yenkawal abdul mutalib muy tuddee yonentu yàlla muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam te xam ngeen irhasaat yi am yépp ci ëmb ga ba ñuy wax aminatu bu juddoo na nga ko tuddee muhammad te la shakka euh, nettali na ko baayam ci abu abdul mutalib ndax mooy bàyyi baayam te baayam dee na waaw ahlan bi yowmi ithnayni mawlidi haani ithnayni mabcaathi sirri alkawni maqdamihi almubajjali ahlan ñu ngi tatagal bi yowmi isnayni bésu altine mawlidi haani isnayni muy juddug aji ñaareelu ñaar ñi ñaar ñan abubakar ak yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñoo ne woon ca xuntuwa yàlla tuddee ko haani isnayni idhuma ñaar ñan mooy yàlla ko yàlla rekk fi ne woon bam nammee keneen ne fi la njëkk ñaareelee amam gi amug yonentu gi la ko njëkk ñaaralee moom yàlla tabaraka wa bës boobu nga xam ne mabaasi sirril kaw ni nim nekkee bésu juddoom la nekkee bës biñ ko yónni moo tax yonentu daan na woor ñu laaj ko lu tax ngay woor mu ne ci laa juddu te ci lañ ma yónni moo tax képp kuy gàmmu rek yaa ko teg ci sunna yonentu sallallahu alayhi wa yaa ngi jaamu yàlla di sant yàlla ci jaamu ga xéewale gi ñu xéewale yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu juddu ci bës bi ne yonentu bi doon santoo sante yàlla di xéewa ci xéewal gi mu ko xéewale mu juddu ci bés bi tax mu di ko woor te woor nag tashriun la li eh, ibadati eh, kulli man araada an yacbud allaha tabaraka wa taala fi hada alyawmi eh, izhaara shukrin lillahi tabaraka wa taala mabaati sirril kawni di bésu yónni giñ yónni mbóotam nekk gi sallallahu alayhi wa sallam maqdami kii di këm al mubajjali gadaguñ màggal bés bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa juddu di bés bi nga xam ne ci la ci lañ ko yónni di di bi nga xam ne ci la génn màkka ci la dugg madina ci la fi jógee it ñibbi kër boromam tabaraka wa taala bés bu rëy la kii altine muy bés bi ñu toll tey jii di ci waxtaan ak yéen xasida ju rafet jile te bu dellu see mooy bésu fukk ñaar ñu war a ànd ñun ñëpp ci adduna bi e, màggal ko tabarakallahu niñ koy e, màggalee ca e, almalawul ala ñu koy màggal fii ci alaalamu sufli ci dëkki jullit yi waaye ci bépp dëkk sax boo xam ne ñu ngi koy dëkkee tuddee dëkk beneen bu dul dëkk jullit ndax léegi foo dem rek jullit a nga fa moo dëkk yëpp daanaka mën ngaa wax ne dëkk jullit la fii ci Amérique rek dëkk boo dem ñu ngi ko fay ñu ngi ko fay xam naa tant yu bari yu ñuy tant fii ci New York benn ci tànt yooyu euh, fii lay amee incha allahu euh, Staten Island altine bii di ñëw au passage ñuy woo képp koo xam ne yaa ngi seetaante yàlla mën loola ko nga ànd ceeg ñun euh, teew ci soo ko mënul fa nga nekk nga an nekk fa ak ña fa nekk màggal fa yonentu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ahlan bi shahri al ibril shahri al karami أكرم بأرض الحرم مولد خير مرسلين أكرم بيوم صار عشرين واستنار بمن حوى الفخار وغفرة من منزلي أكرم بشهر نيسان مولد خير إنسان قدوة أهل الإحسان والكامل المكمل صلى الله عليه وسلم أهلا نجي تتقل بشهر العجم تي ويرو ajam ajam mooy képp ko xam lakkut yaaram bu doon ren bu doon tey ñu ne weeru tubaab ndax ibril la muy avril chehril karami weeru teraanga wi weeru aji tedd ki kii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam akrim yéemal tedd bi ardil xarami ci suuf si xaram mu makka bi nga xam ne fa la juddoo mawlidi xayri mursali di judduwaayu ki gën ci ku yàlla mosa yónni sallallahu alayhi wa akrim yéemal tedd bi yow min ci bés bi nga xam ne saara mujj na ishrin di ñaar fukki euh, ñaar fukki fan wastanaara te mu leero mu amee leer moom bés ba bi man ca nga xam ne xawaa laq na mu alfaxaara mbég alfaxaara puugare wa xafratan min manzili ak kaweeg euh, wàccuwaay kii yonent bi sallallahu alayhi wa wa sahbihi wa sallama avril di weeru ajam ñaar fukk ci weeru avril 571 wala 570 kii juddu yonantu bi sallallahu alayhi wa moom de amee na leer ci yonantu bi kon nag teral ko teralal bés bi teralal juddu gi teralal juddu bi teralal it fa mu juddoo teralal it limba teralal it weer wa weer woow di weeru avril nga xam ne ñun fii ci Staten Island ak walla ci Amérique sax mën nañu wax ne uh, at mu jot danañ ko def muy e, jamono ju nga xam ne daañ ci dajale ay kàngaam ñu waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa muy weekend annuel bu ñuy amal avril bu nekk di tombeek weekend bi gën a jege uh, ñaar fukki fan ci avril tabaarakallahu fii ci Staten Island ci keppaaru Islamic Cultural Foundation of of America bés boobu la si di bëddi di fàttali mu tuddaat ko ne ak rim yéemal ak tedd bi chahri nisaan wala chahri naysaan weeru naysaan ki weeru avril rek mawlid xayri insaan di juddu weeru juddu ki gën ci doomu aadama yi wala ngën ji nit wala gën ji doomu aadama qudwati ahlil ihsaan roy waayu rafetal wal kaamili kay aji sëkk al mukmili kii nga xam ne moom képp kat mooy matal képp ku matati sallallahu alayhi mu ne qad tammati laali fi ciddati layaali fi zinati almacaali kal jawhari almufassali tahniatu rabici bi madxati shafici bilmantiqi albadici abgi biha muammali qad tammat mat na laali wurusi fi ciddati layaali ci limu guddi fi zinati almacaali ci taaru kawey kal jawhari mel ni wurus almufaddali bada buñ gënale kal jawhaar yi mel ni wurus al mufassali gada guñ taqale kon nag tahniatul rabii ñu ngi ndokkeelu ndokkel weeru rabii bi madxati shafii ci tagg yonent yàlla muhammad ki nga xam ne mooy aji rammu ki bil mantiqil badii ñu taggee ko tudd ak wéy woo xam ne wu ànd ak eh, yéeme yéem la muy koo xam ne lépp loo xam ne ulum aju ci bayaan yu aju ci badia waaw wala logique la muy mantiq xamal ne la ca gën a yéeme daa ko fekk ca woy wa te defuma ko nag lu dul benn cause mooy leen ab rii damay sàkku bihaa ci tagg gi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mu amali sama mébét waaw mébét mi ci yàlla la wala mébét mi ci yonent bi la te benn la wallahu wa rasuluhu xaqu an yurduhu ndax mënoo am dara ci yàlla te jaaroo ci yonent bi yàlla yi du joxe dara te jaaralewut ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa fa anta baabullahi ayu mriin ataahu min gayrika aha laa yadxul la ko góor ga waxoon yaay buntu yàlla bi ku bëgg a dugg te jaarul ci yow du dugg moom it moom yonentu mu ne yàllaay joxe waaye man la jox cërub séddale bi abgi bi hal jamaa bihi yowman wa nayla qurbihi wa fadla xubbi rabbihi wa man ridaahu amali abgi dana ma sàkku biha ci tagg yi may tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aljamaa bi dajeek moom yal nañu yàlla boole dajeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow man bés maa ngi sàkku rek maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi yaakaar ne rek bés naa dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir tagg gi ma koy tagg abri maa ngi sàkku maanaam maa ngi ñaan yàlla mu may ma ci barke ak ci sababu tagg gi nga xam ne maa ngi koy tagg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi lu ko laal mu barke rawati nag nga koy tagg te li nga koy waxal yëpp moom la ëpp na ko sax loolu nag maa ngi ciy ñaanee aljamaa bi dajeeg moom yow man bés maa ngi ciy sàkku wa maa ngi ciy sàkku ne la xurbihi amuk jegeem wa maa ngi ciy sàkku fadla xubbi rabbihi nga nee lu cofeelu boromam wa man ka nga xam ne wa man te mooy ka nga xam ne ridaaw ngërëmanam amali mooy sama mébét waaw ab ri bi ama amali wa mooy lan ridaahu amali sama mébét kat mooy ngërmande yàlla te ngërmande yàlla mooy ngërmande yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu wa rasuluhu ni ñu ko waxee léegi axaqu an yurduhu ni ko sama borom waxee ci suratu tawbati والختم لي بالحسنى والجمع لي بالحسنى لدى المقام الأسنى مع الرفيق الأفضل وما نجي ساكوتي تقجله الختم تك لي نيالما بالحسنى ci li gën a rafet mooy muj gu rafet maa ngi sàkku sama dund gi ñu tëjee ko tëjin wa gën a rafet ñu tëj ko tëj ga gën a rafet mooy yàlla may ma xusnul xaatimati wal jamaa ak dajee lii ñeel ma bil xusna ca aljana la dal maqaami ca maqaama al asna may gën a may aji kawe sax waaye ajana ba gën a kawe muy al firdawsul aala maa ngi sàkku ci woy wi dajee fa ak kan maa rafiqi ànd ak àndandoor ba maa rafiqi ànd ak sette sa maa rafiqi ba ki yonentu sallallahu alayhi wa sallam al afdali kay aji gën wa kullana waliyan wa nasiran xafiyan laa naxtashi gawiyan bi jaaye abdikal ali wa kun yàlla nga nekk lanaa ñeeleen yoo sama borom waliyan di aji méngoo suñu mbir yàlla nga méngoo ñu sax waa naasiran da aji dimbale ñu xafiyan ngay aji peeg ñu laa naxtashi ba duñu ragal mukk xawiyan aji beew duñu mënal bi jaay abdika ci darajaay sa jaam alaali bay aji kawe ki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallama al ma daama kawnuhu ilah min abadin li azali wa alihi wa sahbihi wa zawjihi wa xizbihi wa kulli ali xibbihi wa kulli aali xubbihi maa salaami al akmali salla yàlla na dolli xéwal wa sallama te dolli musal ilaahu yàlla al ilaahu yàlla alayhi ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na jàll na julli ci moom afdala salaa gën ci julli maadaama fekk mi ngi sax kaw noo nekkam moom yàlla ilaahan di yàlla ilaah di yàlla min abadin tukkee ca ba faw li asalin jëm ci naka jekk yàlla féeg mi ngi nekk yàlla déppi naka jekk ba faw te looloo am yàlla na nekk di sotti xéewalam ak jàmmam ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi ak waa këram ñoñam wa bi yi ak ay àndandoom wa zawji yi ak soxnaam wa xisbi yi ak kurélam wa kulli ali xubbi yi ak bépp ñooñ cofeelam képp koo xam ne bëgg na ko rek maa salaami ànd ak jàmm al akmali gëda aji mat gën a mët sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama xasida sayidi eh, bëddi ibni sayidin mi ngi noonu ci gàttal nag gi gën a gàtt dëgg-dëgg joxuñu xasida ji xaqam waaye dañ ci barkelu te tamit ñu ànd ngir ne jamono ju nekk ñu ngi déglu xasida ji ñu koy ubbee gàmmu yi di ko woy ci guddi gàmmu yu tedd yile euh, baax na euh, ñu it euh, xam ca lépp luñ ca mën a xam lum tuuti tuuti wettali ko ko barkeloo ko barkeloo ko incha allah noonu la ñuy def ak yéen ci weer wi bés bu nekk dinañ fas yéene ñëw ak yéen ak genn xasida ci xasaayit yi nga xam ne ci la ñuy taggee yonantu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbi wa sallama daaw ak daaw jéeg àndoon nañu ak yéen ci euh, burde bés bu nekk ak benn bunt waaye ren ñu bëgg a soppi doxalin tuuti waaye te du soppi doxalin sax ndax euh, lépp ci yonent bi la alayhi salaatu wasalaam haada sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari al azim lépp lu ci njumte kat suñu yàkkamti la ak suñu xamadi lu ci jub nag sama borom la yàlla dana yàlla defaral ñu suñu mbir ci zaahir ak ci baatin te dajale ñoog yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii ci àdduna ci yeew ak ci nelaw dajale ñoog moom ca àlaxira fi ala illiyina bi fi maqaadi siddiqin inda malikin muqtadirin rahman wassalaamu aleykum وقد كفاها كلها أعداء وكلها بقوله قصد سبابة ثم اقترب بسجدتي مبتهلي هنيئة ربيعي بمدحة الشفيع من وضع البديع بها مؤملي كما تدلى الزهر كما تراءى القصر فيه وحل الكسر بالصنم

السابعين الشريف كريمة ربيعي فتحة الحسنى والجمع لي بالحسنى لدى المقر الأسنى مع الرفيق الأفضل رفيق بالحديث الشفيع بالمنطق البديع أبغي بها وكلنا وليا وناصرا xaaral ma